بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد بني عدنان سيدنا محمد القائل إن الله لا ينزع بركة في قوم نزله فيه وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضا الملك المعبود عن شيخنا وسندنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا أحمد بن محمد بن سالم التجاني سقانا الله وإياكم من بحور فيوضاته بأعظم الأواني ورضا الملك العلام عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا مولانا الحاج مالك عليه رضا المالك وعن سائر خلفائه ومقدميه ومن ترسم خطاهم إلى يوم الدين أصحاب صلاة الفاتح وجوهرة الكمال أيها الحضور الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن صاحب السماحة والمشيخة الخليفة العام للطائفة التجانية الشيخ سيد أبي بكر سي محمد بن المنصور وباسم كافة الأسرة المالكية التواونية نحييكم بتحية الإسلام wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu xam naa ñu ngi yékki suñu kàddu di ci wuutu mbooleem ñi nu jëmmal ci jataay bi tabaarakallahu ak ziyaara ak ndokkeel ci làmmiñu xalifa bi Serigne Babacar Sy Mouhamadunil Mansour jaar ci ay rakkam Serigne Maodo Cheikh Alhaji Abdoul Aziz Dabakh Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz seeni rakk Serigne Alhaji Malick Habib Serigne Mame Ousmane Habib rawatina seeni doom tabarakallahu Serigne Mansour si Jamil Serigne Mansour bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Mouhamadou Nil Mansour Serigne Babacar si bu Serigne Abdoul Aziz Al Amin rawatina nag ki nga xam ni moo leen fa toogal di suñu kilifa suñu mag Serigne Moustapha si bu Serigne Abdoul Aziz ñu di leen nuyu ci turam di yëkkati nuyoo bi di ko teg ci suñu loxo wayjur wi nga xam ni tabaarakallaahu tey mooy xalifa sunu njabootu maam maam alxaaji muhammad maam almalamin sarr yal na yàlla yokk leeram muy suñu bàyyi alxaaji baara sarr yal na ko yàlla gën a dëgëral ah nuyu ko nuyu mbooleem njaboot bi tabaarakallaahu ah ñi nu fekk ci manassa bi tabaarakallaahu ñoom ñëpp ñu nuyu leen ah nuyu suñu jaam bu am solo bi toog waaye itam tabaarakallaahu di sunu doomu bàjjan di sëriñ maam as am cër ci man nag ñaari yoon ndax dafay sama doomu bàjjan waaye di sama goro ndax tabaarakallaahu sunu bàjjan soxna aminte si xalifa moo ko jur ak suñu bàyyi alxaaji muriiru saar radiyallahu anhu yàlla dogal nag mu may ma soxna moom kon sama goro la waaye sama sama jam la xaw ma nag ñaar yooyu ban laa ci mu magam kilifaam Serigne Mansour Sarr ak njabootu suñu kan bàjjan soxna Aminata si xalifa yëpp tabaarakallaahu ñu nuyu ko moom délégation bi mu àndal Serigne Abdou Aziz Ndiouk alhaji Modou Maam ñu nuyu itam suñu maire di monsieur Ndoye Bane nga xam ni moom mooy tabaarakallaahu meeru gox bi di meeru Pire te ku xam na ni Pire ak Ndifif benn lañu ñu nuyu ko nuyu le maire honoraire tabaarakallaahu di Serigne Mbuub nga xam ni moom moo fi njëkkoon a nekk ñu nuyu itam le député Serigne Assane Diop ak mbooleem responsable yi nga xam ni ñoo fi teew waaye rawatina nag suñu mbokk di doom ci kër gi di directeur général bu Sonaged di Khalifa Ababacar Sarr tabaarakallaahu ñu nuyu suñu bàyyi bii nga xam ni mën naa wax ni moo fi Serigne Abdoul Aziz di bàyyi Mor Khoudia Diagne ak délégation yi bàyyi ko Ngaye ku nekk ci gox bi ñu nuyu itam tabaarakallaahu suñu asatise yi nga xam ni ñoo fi doon leeralal tabaarakallaahu ci wàllu daara ak wàllu xam-xam ndax ku ne xam na ni kër gi këru xam-xam la këru daara la tabaarakallaahu ustaz Abdul Aziz ci suñu collaborateur ustaz Moussa ak Serigne Habib ak ñoo séq daara ji ak tabaarakallaahu ñi nga xam ni ñoom lañ ci àndal ci ay association di jamiyat alsaqaafiya ba tiwaawan tabarakallahu làmb ittihaadul jamiyaat al islaamiya bi sëñ Abdul Aziz Al Amin jiite woon ñu ànd ceeg oustaz imam Moussa di ci liggéey ak sëñ Abdul Aziz Sarr tabarakallahu ñu nuyu leen bu baax nuyu itam sunu doomu bàyyi bële di Abdul Aziz Diène bu sunu bàyyi oustaz Ousseynou mu duppee ko suñu wéyju Serigne Abdoul Aziz nuyu mbooleem kilifa yi fi teew xam naa duñu ko lim di leen jotal nuyoo xadara bu tedd ba nu bàyyi ca Tiwaawan di alxadara almalikiya al tiwaawaniya as-siddiqiya te yàlla ka mu teg ca bopp di xalifa bi Serigne Babacar Sy Mouhamadou Nil Mansour yàlla na yàlla guddal fanam te may ko wér ah ñu nuyu itam sunu mbokk bopp tabaarakallaahu di Xaaji Mod ci taxawaay bu am solo bi mu am te wuutu ci ñépp nag wuutu ci famille bi waaye wuutu ñu ci ñun ndax moo ne ci digg bi tabaarakallaahu di jële ci kilifa yi di leen indil waaye di jële ci yéen it yóbbul kilifa yi xam naa seede bi monsieur le maire seede ci moom doy na ndax tabaarakallaahu ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci dëkk bi ak ci gox bi waaye ci xadara bi tabaarakallaahu ñu nuyu ko bu baax moom mbokkam yu baax yi mu ko àndal yëpp ah suñu beneen jaamit di Serigne Babacar Cissé soxna umul xayr di borom wàññi tabaarakallaahu jiitu si na fi suba xam naa li mu wax xaaj moo du yóbbante ko xam naa dama ko naan rek nee ko am na lu ma jotoon a dawal xam naa bu ma jógee dawal ak leneen rek dolli ko ci eh, càng gi ndax tabaarakallaahu sama jaam nga waaye dañu léegi damay koy wax ne ko yow jaam bu jaam bu toogee palaasu sang nga waaw léegi nag jaam yi moom daanaka ñooy toppatoo sang yi waaw léeg-léeg mu xool mu xool garab bu baax ci bitim réew daal di koy jënd indaale bu moo dajeeg moom mu ni ma waaw bii baax na ci ñiy dox mission ci kër gi tabaarakallaahu muy sunu mag di sunu soppe di sunu waxandoo tabaarakallaahu yal na ko yàlla gën a dëgëral ah sant ñépp nag ñi fi ñëw ci ay mbokk ak i wëllëre ndax ku ne xam ne ni gàmmu gi gàmmu cosaan la ki ko fi samp sampe ko ndigal ndigal la bàyyi ko ci borom ndigal ndax Cheikh Alxaaji Malik si radiallahu anhu dinaay faral di waxale yi ma ne leen ndigalal doxal ci gàmmu moom la ko yàlla sédde moo tax ñépp ku gàmmu it boo gàmmoo moom nga gàmmul waaw ndax dafa wax ni man sama bis amul solo bisu yonent bi moo am solo ci man ñu jël ko nag sédde ñu ko ñun ñépp sédde ko julliti Sénégal waxuma sax julliti Sénégal waaye julliti àdduna ndax léegi ñépp a ngi gàmmu waaw ña bañoon sax daan wax lu ñu la ñu daan wax ci gàmmu Jadi wëlbatiku nañ ànd ak nun di gàmmu di màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw te muy ku jara màggal nag ndax koo xam ni bi nga laataa ñëw ci ay siècle ak siècle ñi ngi sa bis waaw bi nga say ngi màggal sa bis di la ngir bis ba ngay ñëw nga fekk taxaw moo tax bi mu nee innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dama yaakaar ni la maam ya dajale woon ci ay valeur te yàlla baaxe leen ndax xam nañ ni ci ñoom la yonent bi di jóge te deret dafa foor la ñu dajale woon ci ay valeur amale ko seen pénc dundale ko seen pénc ngir wajal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki ñu nak ragal naa ni képp koo nit nga borom xel war ci dundal bis boobu mu mel ni nag maam bii tabaarakallaahu la ko dundale dinaay wax xale yi sallallahu alayhi wa sallam bu mu am rek sañ na ndax man waaw ndax daan na toog ba mu yàgg mu ne ana rasulun wala kadib ana bnu abdul muttalib waaw daan toog ba mu yàgg mu ne ah yonent laa waaye ñi ma am ci maami tey ku am ñu leen gën andil ma waaw waaye tiitër nag tabaarakallaahu mooy sonal doomu aadama ba léeg-léeg sax mu tiitëroo ñu mu warul a tiitëroo waaw ah, ndax damay dégg suñu bàyyi ba sëriñ Dil Xaaji bu sëriñ Babacar sëriñ Pape Malick muy wax wax bu am solo mu ni seetlu na at yi mujj yi ma dund ak sëriñ Cheikh Tidiane si al maktum anhu nee na seen jataay nee na du ñu waxtaan ba mu jeex nee na te sëriñ Cheikh du ko laaj ñetti mbir waaw nee na bokk na ci ñetti mbir yi mu ko daan laaj mooy maa du ngeen xëccoo waaw nee na mu ni ko sañu ñoo xëccoo nag ndax ci ferenkulaayu ci làngaa buréen su ko wëri waaw wax bu am solo la waaw ki feram ko ci sa làngaa buri xale yi xamuñu làngaa buri waaw xale yi xamuñu ko waaye mag ñi xam nañ lan mooy làngaa buri waaw ah, ni ko gis nga ci ferenkulaayu ci làngaa buréem du ko wëri ah, li nga am muy valeur mm. say maamaati say maamaati maam bàyyi ko fi mm. nga ñëw gisoo dara lu ci taq mm. gisoo lu ci diine jam gisoo lu ci ngor jam gisoo li ci jikko jàmm parce que mboolem yi yu baax yi ñuy tudd yépp bu ci jikko gungewul kenn du ko baaxal waaye jikko ju baax moo lay gunge bu dee politique bu ci jikko ju baax dugge moo lay gunge ba politik ba mujj a nekk njariñ ci askan su dee diine jikko ju baax moo cay dugg soppi ko ba mu mujje nekk la gën tax mu ne ko ku ferenkulaay yi ci langa buri leen du ko wëli ndax valeur yooyu nga xam ne moom la ca mag ña bàyyi nee na ñaareelu laaj bi daf ko daan laaj mbaa du ngeen Titeru tiitaru feebar la waaw am na ci tant que ngi ci xolam lu mu ah, defati rek dootu ko rek ah, tiitaru rek iya. moo Euh, euh, rab yi rab yi yi yi ñu gën a sib euh, li ñuy tuddee taawuus yaakaar naa moom ngeen di wax jàmm jóg bañ nañ ko ngir jikkoo tiitaru moo tax Seydil Xaaji Malik tudd na ko ci benn xasidaam man lam yatir anhu tuyurun arbau fa ruuxuhu ila al ula la turfau waaw ku naawloo yii picc nee na ñeenti picc ngi bu ko naawloo rek yàlla du la faale bokk na la mu ca tudd mooy ab taawus mooy jàmm jóob gis nga jàmm jóob bu fiiree dunq yi nga ne ko ñëwee la ëpp rek mu tàmbalee tiitaru te xamul ni du tus waaw jay ko ko rek ni ko ñëwee la ëpp dunq yi waaw na ñetteelu laaj bi nee daf leen daan wax ni leen mbaa du ngeen tooñ waaw ndax nit bu xasee tooñ rek booy boo moom mu xam ni gàllaaj maa mën kenn mënu koo dimbali waaw tooñ la yàlla gën a bañ moo tax mu mu araamal ko ci boppam waaw yoneen Seydil Haaji Malick Si radiyallahu anhu daan na wax ni bi ma yëree ñetti inn ci alquran laa noppalu ne ñu ne ko inna yooyu yàlla mu ne inna allaha la yahdi kaydal xaa'iniin ak inna allaha maa saabiriin ak inna allaha la yudayiu amalan عمل من أحسن عملا نيني نيتي تخنا ما نوبلو سي ادنا دا خمنا ني لومو ياغ ياغ ريك يالا دنا ولي دنا وي سي موتاخ كوني توغ بوي بو مو مون كوي توغ نيت بوي بو مو خار لا كوي دالان كوي دال آه. موتاخ تبارك الله يوي جيكو اك فالير ماك ني بايي كو في ماك ني ما تودو ليجي roy Maodo roy Seydil Hadji Malick ci jikko ba samp fi gàmmoom bii sëñ Abdoul Aziz daan ñëw wax naa ni sëñ Abdou moo leen waxoon fii ni leen bari na ku am tànt yu leer micro ya nangu reeram yi ay reeram neex waaye yonent bi du ko gane fii la ko yonent bi fanaan la ko waral nag mooy pas-pas parce que yàlla kenn safu mi ngi xool la ngay jëf ndax dëggu na ci yow rek mu fekk si la ca loola bu dëgguwul du la faale waaw te mag ñi dafa am lu ñu daan lay taayale seen jëf te suñu mbokk mi jàng alquran wax na ko léegi waaw inna alladina qaalu rabbuna allah lu ca tegu summa staqaamu waaw sax dàq rek ci bañ a soppi ak soppiku waaw moo tax mag ñi lu ñu daan def buñ ko tàmbalee dootuñu ko bàyyi ak lu mu leen mën a coûter nag waaw mag mi tàmbali ko ku ne xam na ni tabaarakallaahu ah bu ñu nee gàmmu tiwaawan ñépp jubali tiwaawan bis ba dellu ñu ni mooy ngénte li ñu di ko amalee fii mag mi ko fi sampoon boobaak léegi ñaata at te musul dañ musul soppi ku ndax cëslaay laa dëgër waaw moo tabaarakallaahu ah ku yabu di leen roy ci noonu ndax ñoom jikko yi ñu jikkoo bokk na ci mooy principe waaw te lépp ci Cheikh Al Hadj lañ ko jëlee. waaw nañ ni Maodo bokkoon na ci principe am fu mu dem. lu mu fa fekk bàyyee ko ña ko daan def waaye la mu indaale kenn mënul fexe mu soppi waaw dégg naa ci suñu wéy ju sëñ Abdou mu ni ba muy dem ndar dafa dajale mag ñi ñu ñëw mun leen a yéen nag leen ndar man maa miin ndar kon nag balaa ñoo dem nañu waxtaan ma wax leen la fa am waaw ngeen mën caa bàyyi xel mu ni leen ñu ngi dem dar waaye bu ngeen demee fekk leen ñuy lekk di tour ñam ndax loolu dafa bokkoon ci feeñal opulence bari alal bari doole da ngay ba tu lekk ba tour ñam wane ni yow kat sa kër ndën la bari na mun leen waaye bu leen leen ci roy nag hmm. waaw bu leen tour ñam bu leen fooye ñam mu ne leen di ngeen leen fekk it ñuy sol mbubb yu gudd bay buubu waaye yéen na ngeen daan solo rek soloo leen noonu waaw mu ne leen di ngeen leen fekk it ñu am nu ñuy waxe xam nga yooyu yëpp wàllu complex lay dindi ci ñoom ndax nit bu amee complexe rek toppandoo waaw mu ne leen waaye bu leen leen roy ca nañuy waxee ndax bu ñuy wax di yi seen wax naan ii ni ndar ndar yi waxee waaye yow foo nekkoon mu ngee ñëw waaw ah, yooyu la ndar ndar noonu la ndar ndar di waxe mun leen waaye bu leen leen coroy wax leen na ngeen daan waxee rek sëriñ bi nee na bés mu dégg benn njaboot nee na muy laajte kenn ci xale yi nee na mu ne ko mu ngee ñëw mu ne kuy wax loolu xool gis ni kenn ci njaboot gi la mënu ko ay diw ay diw góor du soppiku da ngaa tàmbalee soppiku xaat góor du soppiku moo tax mag ñi mosuñoo soppiku dëgg la ku ko mës a tàggu ni ko maa ngay dem màkk wala maa ngay aji wala maa ngay umra ji mun laa demal waaye bu fa roy dara ndax góor du soppiku waaw fi ma leen tënk na ngeen ci jàpp te téye ci te xam ne mooy li wér loolu nag valeur yi ñu war a delloo si ci réew mi ndax soppiku dafa dafa gaaw waaw léeg nga gis nit muy wooteel benn valeur di ca wax di ko défendre da ngay jékki-jékki rek gis ko mu soppiku ca saasa di waxaat leneen lu bokkal la mu doon wax te sëñ Babacar Si radiyallahu anhu daan na wax ni góor du soppiku góor du jàpp bay góor du xam fakk yii góor du ko def tabaarakallaahu jërëjëf jërëjëf baarakallaahu loolu pour wane ni rek loolu pour wane ni rek suñu maam yii li ñu ñu tënk xam nañ ko te musuñu tee soppe waaw fa ñu daan taxaw la ñuy taxaw nañu daan def lañuy def bu ñu leen sax bëggee soppiloo jamono indi yeneen yu ni déedéet bàyyi ñu rek ci la ñu nekk te yéen ngeen ne ci li ngeen ne su ko defee tabaarakallaahu valeur yooyu moo indi tey xalifa bi gàmmu Tiwaawan mu ni nañu delloo si waat yooyu valeur jàngataat ko bërki démb maa ngi koy wax xale yi ci Tiwaawan ma ni leen dañuy wax ni xale yi bu ñëwee Tiwaawan photo jël ay kii dem ziyaara yi su gàmmu Tiwaawan jeexee ñu yëkkati seen téléphone def seen statut bind ci gàmmu validé xale yëpp moom la ñuy def yor yi ñu demee def seen statut gàmmu validé waaw yow teel ngaa wax gàmmu validé yow kay balaa ngaa wax gàmmu validé hmm. bàyyil ba at mi dellu nga seet yow li ñu la wax ci gàmmu gi ndax jëfe nga koom déet hmm. am déet yow Maodo daf laa woo ci université populaire am ndax Cheikh Alhaaji Malick moo waxoon ni mag mu amul lul génn dëgg di ko wax ci benn guddi cim at bu sañoon ku mu njaboote nga fekk ko looloo taxoon mag ñi gàmmoo ndoowuñu woon ak moom waaw lu dul ñi sori seen ñëw jafe mu may leen jox leen ndigal ni leen fa ngeen nekk def leen fa seen gàmm waaye ku dul ñooñu la leen Maodo digal mooy na ñu ñëw àndandoog moom ci gàmmu gi ku jeexee nag kuy ngénte nga ngénte mag mu amul lu génn dëkk di ko wax ci génn guddi cim at waaw yow boo ñëwee déglu dégg dëgg googu balaa ngaa wax gàmmu validé na nga seet ndax yow ci sa jikko yi ñu la wax yëpp mi ngi ci yowam dé ku ci newul demal nga nafar ko hmm. demal nga nafar ko demal nga topp ko di ci tàggat sa bopp di ci tàggat sa bopp ba mu wóor la ni denc nga jikko yooyu bu gàmmu déwénee nag nga doog a wax gàmmu validé man leen noonu la ñuy defee waaye nag tabaarakallaahu ndax damay dégg suñu benn mag di Serigne Mansour bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum mu daan wax naan ah bu bu kilifa yi noppee rek xamal ni pare nañu. noppee bu bis bu kilifa yi noppee xamal ni njaboot gi pare nañu moo tax daan wax ni bu leen ñaan kilifa yi noppi mu ni ndax li ñuy wax buñ ko doon misaal ci àdduna nee nañu comme kemtalaayu tëgg bi jël wurus teg ko ci taal bi ba mu xonq mu indi teg di jël martu di ci dóor gis nga tànk parewul tànk parewul mën nañoo jàpp ni wurus bi pareewul waaw moo tax muy dóor di nu wëlbati léeg-léeg mu nooyal bu dëgëree mu roofaat ci biir tàll noonu la suñu kilifa yi war a mel ak ñun moo tax bis bu nu noppee rek àdduna tukki waaw parce que boobu fekk na pare nañu mm. waaw ku ñu pareegul ci yow nag booy boo deel ñaan ñuy wax ngay dégg mm. waaw nit tëgg di jëlee or di ko dóor di ko dóor di ko dóor di wëlbati di dóor di wëlbati ba mu jël form bi mu bëgg mm. gis nga bis bu ko defaree ba mu nekk takkaay bu ñu war a mën a jaayee ay millions hmm. dootoo dégg ni dóor dóor nañu waaw ah. hmm. kon tabaarakallaahu mësuñoo dañ ñoom di ñu wax kon nag bu ñu ñaan yàlla mukk ñu noppi hmm. bis bu ñuy noppi rek na fekk suñu lépp mat su ko defee ñu seet jongoma ju rafet ñu jël takkaay ba taar ba mu àndal ñu xam ni moom la méngool ñu takkal ko bu ëllëgee yowmal am nag noonu lay demee ci sa kanamu borom la la doon wax yëpp di la ko fàttali nga di ca góor góorgóorlu soo demee taxaw ci sa kanamu borom yàlla dindi médaille tappal la ko defee kon ah ñuy bàyyi xel loolu moo tax tabaarakallaahu ñoom mag ñi ñu roy ko ci fexe ba seeni daara seeni ëtt nekk daara ñu di ci former la ñu mën a former ci njaboot ci wan leen valeur yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am te may wax ni valeur bi ci gën a kawe mooy doon gi mu doon exemple waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana exemplarité boobu yonent bi nekkoon nga xam ni mag ñi lu ne bind nañ ko ci damay wax ni boo jàngatee jaar-jaaram wala xuma sax jaar-jaaram waaye ñi ko jiitu ci ay maamam li ñu jaar fi ñu jaar ci ay tegtal ma di ci joxe exemple maamam bu ñuy wax Usay nga xam ni mën naa wax ni ci moom la yàlla jaarale tey mbooleem xabaa ilu arab ñu dëppoo juboo parce que dafa fekk jamono xëccoo kujje bari ci seen biir waaw xabila bu nekk naan maa la gën a yey maa la gën a foor maa la gën a doon garmi waaye yàlla baaxe ko muy boroom xel mu sori lool waaw ndax dafa jékki-jékki rek jël ay bagage am rek dem ca àll ba dem ca àll ba di xool di observer ndax nit dañuy wax ni ñaareel boo tukkee yàlla dana la wan wala jaarale la foo xam ne boo ñëwee sa dégg-dégg ak sa gis-gis dafay gën a yaatu ñi nga bàyyi tukki boobu waral mu dem tabaarakallaahu dellu si nag yàlla may ko xel mu yaatu moom xusay mu dajale arab yépp ñu ñëw mu ni leen su ngeen bëggee ki ñuy waajal muy yonent bi teew bokk ci ñun da ngeen di fexe ba boole seen bopp te li ngeen di fexe ba boole seen bopp nag mooy sang bu xëyee yitteem bi gën a rëy mooy na fexe ba doon surga mu ne ndax pénc moo xam ni bu sang xëyee yitteem ba gën a rëy mooy doon surga surga bu xëyee yitteem ba gën a rëy mooy doon sang nee na boobu pénc jàmm rek a fa tax nit gënu nitu yàlla ah liñ lay sant mooy yow mi ngi ñu jàppee ni yaay sang bi wala yaay sëriñ jàppeel sa bopp taalibi moo lay may cër waaw man tawaadaa lillah rafaahu llah yow mi doon taalibe wala doon surga ca kër ga ñu fexe ba nga doon sang mun bis bu ñu ko defee ci biir li ma gis muy xëccoo wujje léegi jàmm mu ne leen bu ñaareel bi fexe leen ba boroom cër yi fal yi cër yi leen di jox na doon ñi ñi gën a gàtt xel ci mbooloo mi ni boroom xel mu gàtt boo falee rek noppal mu ni dana tax boroom xel boroom xel yi liggéey waaw mm-hmm. ndax ki nga fal muy boroom xel mu gàtt pal ngaa koy doy sëkk waar pal moo koy doy sëkk waar mooy tax du sonal ñi boroom xel yi war a liggéey boroom xel nag soxlawul ku ko fal waaw bu toogee ca pénc ma mën naa liggéey bu dëddee ca romb jaanam mën naa liggéey waaye ki nga xam ni dafa gàtt xel moom moo jàpp ni buñ ko falul rek warut a liggéey kooku nag mu ni nañ leen jox cër yi waaw noonu la fexee ba organiser leen ci wàllu woowu mu ni leen bi ci des it mooy néeg bii di néegu yàlla te at mi du jeex te amul fu nit di jóge ci àdduna bi ngir ñëw fas yéenee jaamu yàlla fii ñun la ko yàlla cërale waaye bu ñu doyul matul lañu doon ku fi ñëw dootoo dellu kon nag ngir ñu mën a mat li ñu doon mooy teranga bi war suñu digganteeg ñoom te gan dañ koo war a teral mooy ku fi ñëw rek sa lekk ak sa naan ak sa sécurité ñun la war kon nañ ko organiser ci suñu biir waaw mu ne ni ñu koy organiser nag mooy giir gu nekk dañ koy dañ koy sédde benn cër ñiy jël dund gi ñu war a dundal ko jaaji geneen giir moom jël ndox mi ñuy naanale ko jaaji beneen giir jël euh, seen wàllu sécurité noonu lañ ko seddalee mu leen bi ci des nag mooy kaaba gi kenn waratu ko moom dañ ko war a def patrimoine pour ñëpp mooy dootuñu jël benn nit ñu ko yow yaay def lu la neex ci kaaba gi sañ nañ ko dénk caabi ji nag mu téye ko waaye nag ñun ñëpp la koy gàddu te nañu fexe it ba am fu ñuy daje di waxtaan loolu moo indi cheikh bu bani hashim te foofu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddoo mun leen kon nag nañuy daje foofu di waxtaane suñuy mbir lépp lu xewati nañ koy waxtaanee ci pénc naa wax ne sax bu doon ci suñu jamono bi ñu ni première assemblée nationale foofa la sosoo mu ne leen beneen bi ci des nag mooy ñi ñu wër ñi ñu wër gis nga ma gis nga moo tax lu ne rek amoon na xoolal xalaat bi mu indi tey boo demee ci réew yépp moom lañuy jëfandikoo mu ne leen ci wàllu relation extérieure nañu fexe ba buur yi ñu wër te am doole giir bu nekk na tànn benn buur mu wëllërante ak moom xamoo ni buur boo wëllërante ak moom rek jeex na nga am sa sécurité mu ne leen su ko defee at mu nekk na am ku jóge ci Makka Xijaaz dem gane ji buur boobu su koy gane ji it dul gane rek na ko gane ji waaye na yóbbaale njariñ bu fay jógee na fa jële njariñ waaw loolu na yàlla tagge Quraysh ba wax li ilaafi Qurayshin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayf ndax dañu daan def bu na noor ñëwee ñu dem dëkk ya ñuy dem buur ya fa nekk te ñu wëllëranteeg ñoom lu ñu mën a yóbbu ci marchandise ñu yóbbaale ko suñu demee jaay ko foofu hmm. bu nu ko jaayee ba noppi dañuy sàkku jël foofu marchandise ànd ak ña ñu war a àndal ñëw indi leen màkka ndax bu ñuy ñëw di agsi hmm. ñoo leen di gunge su ko defee produit yi mën a mën dugg mën a dugg hmm. moo taxoon màkka dem ba mujj nekk centre ci wàllu commerce waaw lépp lu ñuy soxla bu dee ci wàllu col bu dee ci wàllu lekk bu dee ci wàllu leneen ak leneen boo ñëwee ci aj bi da ko fi fekk moo tax bi ñu bëggee indi jamono yee passé que ni waaw aj gi daal léegi jaaykat yeeg yooyu dañ leen a war a gimal leen ah li yashhadu manafia lahum la yàlla wax de waaw li yashhadu manafia lahum nañu ñëw waaye bu ñëwee nañ fi fekk njariñ hmm. ah, ku dem yóbbaale dara booy ñibbi indi sëri ci hmm. loolu ku say moo ko changé ci ci màgg hmm. fexe it ba kuy dem ci buur yooyu boo dee boo dee sang da nga wut surga boo àndal waaw ndax dissension yi la doon bañ ci wàllu social Euh, sang yi di gën di nekk sang surga yi di gën a nekk surga mu ni léegi buy demati bu dee sang nga na nga tànn surga ni yow ci sa famille mu ànd ak yow ngeen dem bu ngeen demee la nga wëllërantee kooko yit nga boole ko ca waaw noonu la def noonu la def di waajal kan juddu yonent bi sallallahu alayhi parce que xam na ni yonent bi bu ñëwee war naa fekk ñu ratisser terrain bi loolu tabaarakallaahu ah moom la mag ñi séntu ci yonent bi moom la mag ñi séntu ci lu jëm ci siira yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallaahu suñu maam Cheikh Alhaaji malik si radiallahu anhu woote ko ci Tiwaawan wax mag ñi ni leen na ngeen fexey ba lu mu mën a amee bu leen génn bu leen génn yoon wi ma tracé waaw ñu ni ko yoon wi nga tracé mooy wan mu ni ala azimu layla alwiladati xisbatan ida lam yakun nahwa alxaraami udul te Cheikh Alxaaji malik boobu conduite la ñu jox waaw mooy na ngeen fexe ba gàmmu bu leen ko def bëccëxoo na ngeen fexe ba gàmmu bu leen ci dugal lu ci bokkul na ngeen fexe ba gàmmu gi nay yonent bi moom dong kott rekk te ni ma leen koy waxee jëfe naa ko ngeen gis parce que danaa bind téere bàyyi fi téere bi may bind bàyyi fi dana leen doy ci ngeen mën a jàmm jàngataat dund yonent bi at mu ne muy gën a bees ci yéen ba ba ñu dalee gàmmoog léegi yàgg waaye gàmm bu jàll ñu ni biee dàq thème bu ñu tànn am na junni téeméeri junni millions yi thème yu ñu mën a génn ci dund yonent bi te du jeex gàmm du vide ba ilaa yawmil qiyaamati gàmm du ñu ñàkk lu ñu wax ci yonent bi ba ilaa yawmil qiyaamati parce que loolu yonent bi moo ko garanti ki mu ko jox mu sécuriser ko certifié ko mooy Cheikh Al Hadj moo tax kuy gàmmu rek ci certification Cheikh Al Hadj nga koy def su dee nar ngaa jaar ci yoon boo naru la jaar ci yoon nag ah bu la neexee def ko na ko ceddo yi daan defee waaw ndax Maodo daf fi fekk gàmmu waaw ñu tuddee ko lañ ko tuddee mu laaj ni waaw lu ngeen lu ngeen di gàmmoo ñu ni ko ah, gàmmukat li daan cosaan li mooy dangay am sa géer mbaa nga am sa sang nga fas yéene koo teral wax mbaaxam ci pénc mi nga woote gàmmu waaw su ko defee ah koo am ci ku baax mu ñëw teew nga fas yéene tudd sang boobu nga bëgg a feeñal mbaaxam ci pénc mi nga wax mbaaxam ba mu jeex noonu lañ daan gàmmoo yéen Maodo ni ah lii de baax na ndax ci jokk mbokk la bokk waaw ci tagg say maam yeneen ya ca aju taallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxaamakum yonent bi nee na jàng leen xam seeni maam ndax ngeen mën di ci jokk seen mbokk waaw moo tax damay wax ni sama benn wëllëre Serigne Moustapha ndeysaan su ma téléphone bu téléphone bi sonné dafay ree ndax su soxna si wootee dama koy tagg waaw ah, waaw ah di leen tagg seen soxna yi ah. Ah, waaw waaw ci yëf yi nga xam maam bu xamul nga denc ko ba bés mu woola rek nga taggal ko maam waaw ndeysaan su ko defee bu soxna si wootee rek ma ne ko ah cuqale ngiij laan ngir ñu laan sare sare njaajaan njaay alburi abu dardar ko defee mu ree waaw mën na ko yooyu tamit def noonu léeg-léeg soxna si woote nga jaar ci nga jaar ci maam yi ah ndeysaan suñu benn xarit ndeysaan léeg-léeg dem naa ba miin sax ni muy teggee soxnaam ndax ni mu fonkee loolu waaw bu soxna si woowee mu jaar ci waaw niko ko awakumba Mody Awa Coumba mbokku Cheikh Tidiane mii la man dem ba ñun ñëpp waxee ñu eh, ne ko waa ana Mody Awa Coumba waaw mais yonent bee ko digle nee na ngeen xam seen i di tagg seen i soxna di tagg seen i mbokk ndax ngeen di jokk ngeen ah, di leen jokk koo tagg maamam tuddal ko ko rek jokk waaw moo bi Seydil gis woowu ñu doon ci mu xam ni forme boobu baax na waaye buñ ko buñ ko buñ ko wutalul direction du baax mm-hmm. mu ni kaay leen ma woo leen nag ñu tànk ñu tagg ki nga xam ne mooy sangu-sang yi muy Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa mm-hmm. génne lu ca doon rek lu payen waaw indi yonent bi teg ni leen kaay leen say maam la nga am yëpp bu dul woon ak yonent bi du ngeen am kon nag loolu ñu koy gën a feddaliwaat di ko bàyyiloo xel njaboot yi rek parce que jamono mooy indi léeg-léeg nit dem ba fàtte waaye ku fàtte dañ koy fàttali waaw ku juumit ñuy wax ko ni delloo si ci rang yi mu xam ni juum na wax dëgg yàlla tabaarakallaahu eh, daan naa dégg suñu wéyjur sëriñ Abdul Aziz yàlla dogal na tey la am juróom-ñaari at ci suuf ñu di ko fàttali le 22 septembre waaw tey gàmm gi àla daw me septembre di sëñ Abdoul Aziz génne àdduna may wax sëñ Abdoul Aziz da béy waaye incha allah bu ñu paree rek ñu njàng ñu jàng sëñ Abdoul Aziz daan na bokk ci li mu daan tenir mooy njaboot bañ a bañ a soppi ko hmm. waaw daan na ci wax lu ne parce que damono mooy indi loolu léeg-léeg nga gis itam dinaa koy wax njaboot yi ne ci xadara bi hmm. am na ci ñoo xam ne xamuñu xadara te jàngaluñ leen te xamuñu ni dafa am danger yoo xam ni soo respecté wul norme yi hmm. danger yooyu mën nañu laa dal waaw te mooy la mu daan wax naan kër gi dafa do ay sens interdit ak ay feu rouge hmm. te kenn du la ko wan doo kenn du ko bind fenn soo amul nag mag mu la mu la mën a wax loolu ba gidde la soo moytu da nga tàbbi ci kam waaw maa ngi fàttaliku at bi mer lool parce que hmm. dama am xam nga ni ñuy def rek ziar général suñu maam Cheikh El Hadj Aziz toog njaboot bi jóg am naa bu daan ñëw dañ koy wutal ay motaar ñu di ko ñu di ko xàllal waaye fu Cheikh El Hadj Aziz toog ay njabootam toog ak xam naa ci njortam lu rafet rek mu yaakaar ni moom teel naa ñëw mu ànd ak motaar yi ñu di ko xàllal di ko xàllal di ko xàllal ba mu yegg keroog sëñ Abdou Aziz ña fekke woon jataay ba xam na ni mer na loolu waaw wax ni lii bu mu amati waaw na mujj tey ndax daje bu Cheikh Hadji Abdoul Aziz toog xalif général de Tijaan ah. Muxtaar di dégg ay wiiw wiiw wiiw ba tax sax moom mu jug taxaw ndax yaakaaroon na ni waaw keroog loolu la sëñ Abdu wax wax ja nag kañ ko wax mu metti ko hmm. ndax njaboot la te xam naa yaakaaroon na ni ah xëy na bu juumee sax dees na ko ko waxee neneen ba yàlla dogal ay mbokk ñëw nag di ko wax si sëriñ bi ni ko daal diw daal nee na moom li ko ci metti mooy mbir mi daal ni nga ko ko waxee ci mbooloo dafa mel ni da nga ko xaw a toroxal sëriñ Abdou ni bu ma ko toroxalul woon bu demee du fanaan biti waaw parce que dafa am loo xam ne almartabatu laa tusaamih mu ni ko bu ma ko deful woon noonu mu ni mu ni leen mu wax mbooloo moomu ni leen diw mu ni am ah, mu ni leen daf ma waroon a gërëm ndax li ma ko def su ma ko deful woon su demee du fanaan ndax almartabatu laa tusaame nitu yàlla bu toll ni Cheikh Alhaaji Abdoul Aziz nga def suu adab ci kanamam bu la jéggalee sax martabaam du la jéggal ñu ko kon moom xamul bu xamoon daf may sant gërëm moo tax léeg-léeg dinaay wax ne am na njaboot yoo xam ni mm-hmm. liñ leen di wax bu ñu ko jëlee xol nañu xam ni rek loolu moo jaar. moo war a ko deful musiba am. ndax am na loo xam ne ku ko def ci xadara bi bu dee dëgg la. yaa ko def. Hmm. balaa déwén bi nga gis résultat hmm. bi. ko defee kon. Hmm. loolu moo tax tabaarakallaahu ah gàmm nekk li mu nekk. Seydi Hadji Malick def ci nag ay eh, garde fou. waaw garde fou. nee nañu mam Alxaaji Rawxaan radiyallahu anhu la taxoon mu bis dafa dégg am kuy wax ak beneen moroomam ci wax boo xam ni wax bu xaw a déplacé la da ko ne kañ nga gëj gis jigéen jigéen mbokk xarit bi mooy wax ak ni ko yow kañ nga gëj a gis jigéen mu ne ko ci maam rawaxaan dégg ko nag waaw ah, sama gàmmu gii de danaa ko fi yemale ah, xoolal mag mu yegg ci wattu ku wax rek ni man ma gis naa maanaam gàmmu ga sabab na ma gis jigéen bi gis mu yemale fa gàmm ak yeneen ak yeneen am na mag ñoo xam ni ñoom ñëwee tabaarakallaahu hmm. la ñu daan warloo Maodo mooy jàng seen jukki kaamil nu jàngee seen jukki kaamil ba mu jeex ñu yéene ko def ko hadiya ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal Maodo ñaan ñu dellu loolu mooy seen gàmm ndax gàmm goo xam ne ci jàng jukki kaamil nga ko sose ah tabaarakallaahu leneen lu fa xew lu dul loolu rek yàqu kon su ko defee ñu gën a bàyyi loo xel njaboot ci loolu hmm. te géew bu yonent bi nekk mm-hmm. teggin rek moo fa jaar waaw teggin rek moo fa jaadu mm-hmm. yar moo fa jaadu mm-hmm. tënku moo fa jaadu xam sa bopp xam li la war nga def ko tabaarakallaahu bu ko defee kon nag ñuy ndokkeelaat njaboot bi ci seen gàmm gu tedd gi di guddi yonent bi sallallahu alayhi wa mag mi ko fi sampoo nit sampee ko dëgg mm-hmm. moo tax du soppiku du changé dañ la ma leen ko waxee woon rek wax ngeen fii mm-hmm. ni gàmmu gi dañu daan tàllal ay ay bâche ay xëddeen ak i gittax di ko tànt di ko yoon wi neexul terewul mag mi di ko samp ñuy dem ba yàlla indi lii mm-hmm. di saabu nu fi dajee mm-hmm. ñaan suñu soxla ne ah ñun kat bëgg nañ balaa déwén mm-hmm. yoon wi baax monsieur le maire mm-hmm. yoon wi la baax ngeen boole ko seeni seen i ñaanoon nañu courant tabaarakallaahu yéen def ngeen taxawaay yey war ba dëkk bi dëkk yi ko wër tabaarakallaahu ah lii nga def mën naa wax ni doy na bilan doy na bilan waaw am na loo xam ne ku ko def liggéey ko soo paree ni ah gars yi joxaat leen ma danañ la joxaat. ndax doy na bilan su ko defee tabaarakallaahu ak ah, ñu dem tey ba gàmmu gi yegg fii mu yegg. Hmm. dañuy ñaan mu gën a yaatu. waaw at mu ne rek dàq moroom at mu nekk waxuma euh, commune bi waxuma departement bi waaye région bi. ñuy màggal di dundal gàmmu gii ndax ci gàmmu yi ñi ndigal jibe la bokk looloo taxoon sëriñ Abdoul Aziz bu ne xam na ni bu génnee gàmmu Tiwaawan ba mu am weer kenn mënut a jot ci moom lu dul gàmmu gi waaw moo tax da daan toog li ñu miinoon mooy sëriñ Abdoul Aziz bu gàmmu Tiwaawan jàllee bu gàmmu gi jàllee day dal di daw Cees ngir mën a noppaloo ji foofa ndax Tiwaawan nit ñi dañuy ñëw saasu ne waaye balaa dem day nekk gàmmu gi waaw ah. du dem Cees te gàmmu gi jàll bu gàmmu gi jàllee nag mu doog a dem noppalu loolu ndigal la te tabaarakallaahu ndigal lu mu jëlee ci ay magam la ak i bàyyam ndax Sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Sy Al Serigne Mansour si borom daara ji Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si Jamil rawatina nag suñu maam Cheikh Alhaji Abdul Aziz ñoo ko ci joxoon ndigal mu ñëw di ko fi taxaw di ko taxaw ak mag ñi mu ko àndal ku ne xam nañu gàmmu Piret gamu Ndifi ak gàmmu Njaasaan ñooy cosaan fii ci gox yàlla dogal tabaarakallaahu loola ngi continuer dañuy ñaan yàlla ko yàlla gën saxal ñu ñaanit képp ko fi teew ah yal na yàlla dëkk ci teew gi nga fi teew fajal la sa aajo biir ak sa aajo biti ñi jàpp ci gàmm gi yëpp tabaarakallaahu ah ndax xam nañ ni mag mu yàlla gërëm loo def rek bokk ca ngërëm yi waaw ah, te Seydil Haaji malik si radiyallahu anhu cofeelam ci yonent bi mag ñi ko yàlla séddee woon seen cofeel noonu la tollu ci yonent bi waaw te moom nag tabaarakallaahu dafa tegul woon kenn ci kaw yonent daf daan wax ni cheikh yi sama sëriñ ci tariqaam laa nekk waaye bu roy jotee ma bàyyi ko fa roy maamam xam na ni cheikh roy na maamam waaye danañ wax xanc ca weewa yàlla digal nañu ni roy leen yonent bi laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana kon nag man yonent bi laay roy te roy na yonent bi ba mu jeex takk mag ñi mu amit roy nañu yonent bi ba mu jeex takk jàng li mu jàng leeral li mu leeral ku leen ku gis li mu bind ci ay domaine yu wuute moom Cheikh Al Hadj Malick ci fànn yëpp te ba léegi am na fànn yoo xam ne boo demee ci diwaan bi sax fànn yooyu jàngaleeguñ ko waaw leen léeg ma tooñ mi professeur ci wax leen ne ah, war ngeen a gën a waaw taxawu daara ji de jeex ci mbind mbindu mag ñi moom nag mi ngi ciy def liggéey bu am solo waaw te yamul ci réew mi waaw ba ci bitim réew tabaarakallaahu léeg-léeg mu def ay contribution yónnee ko tabaarakallaahu journaux yi nekk ci sous-région bi moo xam Mauritanie moo xam feneen ak Maroc ak feneen ba ñoom sax dañ koy publier ñu di ko yaraat ci biir ci internet tabaarakallaahu liggéey boobu am na solo waaw léeg-léeg mu yónnee ma ko ma taf ko ca bibliothèque bu sëriñ Abdoul Aziz Al Amin mm-hmm. wan leen ni leen ñun bu ngeen di tiitaroo seeni borom xam-xam ñun ñii lañu am waaw te nit du néewal la mu am nit du néewal la mu am ñun ñi nu am mooy ñoom ñii tabaarakallaahu ah di bind di fi di teg di firi li mag ñi bind ah di ci def ay euh, contribution mm-hmm. léegi-léegi ñu def ci sax recherche fexe ba yeneen étudiant ak yeneeni élève mm-hmm. di ci jariñu loolu tabaarakallaahu lu am solo la te léegi-léegi ñu sotti ko ci biir daara ji mm-hmm. ñu sant leen bu baax ci taxawaay boobu ndax tabaarakallaahu loolu la Cheikh Alxaaji Malik Si radiallahu anhu waxoon yaa bëgg naa day réew mi balaa sama mission di mat hmm. ñu dem ba juge bi génnee ci tribunal bi ñëw dugg ci biir jumaa ji wala jàkka ji hmm. ñu liqaamal ko mu jiite nit ñi julli goo xam ne kenn du ca mën a dul baaraam mu ni wala médecin bi génnee ci hôpital bi hmm. summi buluusam sol grand mbubbam ñu liqaamal ko mu jiite nit ñi ci jàkk ji te kenn du ca mën a dul baaraam mi ngi ñëw mu ni wala ingénieur bi génnee ci chantier bi wala chercheur bi génnee ci laboratoire am nee na ñëw ñu li xaamal ko ci jumaa ji wala ci jàkka ji mu jiite nit ñi te kenn du ci dut baaraam mu ni bis bu ñu demee ba Sénégal yegg foofu boy boo ñu xam ne man Cheikh Al Hadj Malick sama mission mat na ah, waaw moo tax moom da doon préparer ay élite pour ñooñu ëllëg ñu mën a yor réew mi taxaw taxawaay bi nga xam ni moom la kilifa war a taxaw moom la borom xam-xam war a moom la ilimaan war a taxawee su ko defee kon tabaarakallaahu mel na ni loolu ah mi ngi génn di feeñ ndànk-ndànk ndax léegi bari na fooy dem ña fay ilimaan ñii ay chercheur lañu ñii ay enseignant lañu ñii ay médecin lañu ñii ay juge lañu waaw dama am benn surprise bu neex ndax dama dem Paris ci benn daje bu ñu doon amal foofu benn juge ñëw fa waaye bi muy wax man jàpp moon ni juge mooy wax man pour man kenn ci waa daara ji mooy wax ndax ni mu maîtriser li mu doon wax ak mbindu Seydil Hadji Malick ni mu ko intéressé waaw bi mu waxee ba jeexal ma ne ko xam naa day bu dee fa Seydil Xaaji Malick nekk nit mënoon naa yónni sa bët mu xool bu demee dana ko fekk mu bég lool te xam ni mission am yàlla nga koy mottali waaw ne kon ci sa waxtaan bu am solo bi nga def kon tabaarakallaahu loolu mooy Sénégal loolu mooy réew mi su ko defee ñu ñaanaat rek yàlla na fi yàlla dolli jàmm yàlla na fi yàlla dolli sutur yàlla fi yàlla dolli teraanga te lu baax lu ne ñu di ko waxante waaw waxante lu baax ku ne di dégtal sa mbokk lu baax dafa am solo waaw dégg naa suñu wéju sëñ mu ni réew mii mbaax rek a fi war a sax waaw réew mi di Sénégal mu ni mbaax rek a fi war a sax mu ni kon nag ni ñuy wax nit ñi lu baax waaw di leen wax lu yiw hmm. waaye bu kenn taamu di wax lu ñaaw walla ngay ñaawal hmm. jëme ci sa mbokk loolu réew mi xamu waaw ku juum nag ñu ne la juum nga loolu moom waaye mu bu mu ju bu mu jur ñaawal bu mu jurit wax bu déplacé waaw parce que waxante yi rek mooy jur nit yegg ci wax kilifa walla wax lu mu warul a wax ndax mer moo mel noonu boo xasee mer dootoo contrôler sa bopp waaw Seydunaa Muusa dafa dajeeg iblis iblis ni ko man de sama digganteeg sama borom kenn mosu cee wax daa bëgg nga wax ci hmm. mu ko baax na bu ma demee naa ci wax ak moom hmm. mu dem suñu boroom ni ko man de dara boolewu ma mu ne ko soo demee waxal ma sa borom lan laa ko def hmm. su dee lu ma mën a jéggalu ma jéggalu Moussa dem suñu borom ni ko man de Iblis defuma dara dama ko ni ne sujjootal aadama rek mu lànk bis bu sujjootalee aadama rek ñu jubóo. waaw waaw. Ah. Moussa ñëw ni ba dafa mel ni wut am naa solution de mu ne ko lan la mu ne ko wax naa ak sama borom nee na hmm. bis boo sujjootalee aadama rek ngeen jubóo hmm. mu ne ko sa borom bëggul ñu jubóo eh. mu ne ko parce que du ma bàyyi ba aadama ba muy dund laa ba ñoon sujjootal ko ma bàyyi ba mu dee ba reex yëpp hmm. may dem ci bàmmeelam di ko sujjootal Ariengok, setan. mu ne nag Seydina Moussa segam yow dox nga ci yii hmm. may ma nag man danaa la digal hmm. loo xam hmm. su ko sa njaboot wattoore dootuma mën ci ñoom dara bokk na ca la mu ko digal mooy waxal say njaboot bu ñuy mer waaw ko gis nga nit bu man man jël sama ko ci xolam di ci wal safara su tàng waaw ngay gën di mer rek mer moomu mooy dem ba dootoo mën a contrôler sa bopp wax lu luy réccu ëllëg moo tax solution bi ci lislaam mooy yow jullit boo meree nee na bu la fekkee taxaw ngir jiifal mer mi nee na toogal waaw waaw ki ngay xulool walla ngeen di waxante so waxee ba mu yàgg nga toog kooku xam ni yow naroo musiba naroo musiba wax dëgg yàlla mu bu la fekkee toog it nee na soo mënee nga tëdd sax def ba xam ni ah yow xeex wala bëgg nga jàmm rek jàmm ngay wut waaw ah, ci wut jàmm ak jiifal sa mer waaw hmm. ah. moo ni ko xel waaw nga nga wut luy luy calmer sa mer luy dalal sa mer te bañ di waaw féeteerlu loolu dina la dimbali ba doo wax musiba doo wax looy réccu ah léegi nag damaa jàpp ni fi mu ne eh, yaram yëpp a tàng waaw waaw moo tax da ngay gis nit muy mer doo xam sax lu tax muy mer boo ko wowoon laaj ko ni ko yow li ngay mer lan la du la ko wax nga gis nit muy xultu nga ne ko li ngay xultu du la mën a wax lan moo tax muy xultu moo tax damay wax léeg-léeg ñuy nañuy bégal bégalante waaw wax luy reeloo nit wax luy bégal nit te bañ a wax luy frustré nit waaw nga dugg ci pas-pasu jàmbur mhm. wax ca loolu waru la wax mhm. léegi bari na lool ci réew mi ndax léegi nag ah réseaux sociaux yi ñoo yàq lépp mhm. waaw réseaux sociaux yi indi na tey nit lu ko neex wax loo bëgg a yëngal nit ci xolam ak ci pas-pasam def ko da yomb lool ndax da ngay jékki-jékki rek def sa live waaw boo defee live wax lu la neex waaw tax Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu nee nañu waxoon na sëñ Babacar ni ko yéen a ngi jëm ci jamono bu jafe waaw bu jafe mucce te neex a waxe jafe mucce waaw neex a waxe te jafe mucc ndax da ngay wax wax yomb lool boo taalee sa téléphone wax lu la neex kenn mënu ci dara nu ko waaye jamono bu jafee mucc la kon nag bu ngeen yaboo rek ngeen taxoo seen kër te tëj seen gémmiñ na nee na moom bi mu demee gànnaar loolu la ko Cheikh Mouhamed Ali Yaqub bi digaloon waaw ba mu demee ci moom mu jox ko la ko jox daf ko ne kaay ma digal la yaa ngi jëm ci réew moo xam ni boo fa demee na nga takkoo sa néeg te nga tëj sa gémmiñ waaw ko ndax ñu ngi ci jamono boo xam ni wa buyutin bin naquuti ñu ko boo góorgóorloo ba ni dama fiy wax dëgg ñu ko soo moytuwul ak yaru alkaati dal kon nag taxol sa néeg nga tëj sa nga sa musiba yi nit fu mu warut dem làmmiñ a ko waral. làmmiñ a ko waral wallaahi ko waral. ci wax rekk wax rekk wax rek wax rek. ko defee kon nag loolu ñu gën ko bàyyi xel tey wax luy defar te bañ a wax luy yàq waaw réew mii ah ñoo ko moom buñ ko yàqee ëllëg ñooy wu ñooy ñooy ñooy ñooy subir conséquence nay wax ni ñaari réew war nañu cee jël exemple benn bi fii la ne ci Afrique mm-hmm. muy Libye mm-hmm. beneen bi ñu des nekkul ci Afrique ma nga ca Asie mm-hmm. muy Iran Libye la fa nekk ci nitu yàlla kenn xamul nu mu toll la fa tëdd ci ay sufiyanke kenn xamul nu mu toll la leen yàlla defal terale leen ko ngir nitu yàlla ya fa tëdd te muy pétrole tey mel na ni pétrole ba jëriñatu leen dara ndax rayante xëccoo rayante xëccoo waxante lu ñaaw jur loolu nga génn foofu dem Irak fa la Abdul Qadir Jeylaani tëdd fa la Xasanul Basri tëdd ak ñeneen ak ñeneen réew ma la fa ci ay nit yàlla kenn xamul lu mu toll waaye ñu ngi mi nii boole ceeg pétrole ba gaz ba fa am richesse ya fa am nekkatuñu ci jàmm kon bu ñu ni rek suñu maam yu baax yi bi tëdd ah, ah dara du fi xew yàlla loolu safu ah, yàlla loolu safu waaye bu xol yi sellee rek tabaarakallaahu yàlla mën na def jàmm kon nag nañ koy muñalante rek waaw ku nekk di wan la sa mer waaw ndax bokk na ci liy yëkkati nit doomu aadama wan na mer wal kaazimiina al-ghayz wal aafina ani nnaas hmm. wallaahu yuhibbul muhsinin loolu la yàlla wax ci alquran naw naa ñiy nëbb seen mer naw naa ñiy jéggale tey jëlale naw naa ñi nga xam ne sax bu ñu jéggalee jëlee lañ cay teg mooy ka leen def loola teraanga ko defee kon nag ñu ngi waat delluwaat di bàyyiloo xel njaboot yi loolu di sant ñëpp kàddu yi la ma mu Moustapha ni woon ah xam naa li ma wax yëpp mënuma ko wax ci jataay bi waaw ndax tabaarakallaahu ku ne xam na li dox diggante ñaari ëtt yii ëtt ba ca Tiwaawan bi si ëttu Seydi Seydil Haaji Malick xadara Serigne Babacar Si ak ëtt bii waaw suñu waajur yi nga xam ni ñoo ko séq tey waaw damay wax ni doy nañu exemple ci taalibi waaw doy nañu exemple ci njabootu doy nañu exemple ci orma waaw ni ñu ormale woon suñuy kilifa tabaarakallaahu nekk taalibi piir waaw bi maanal kalima nag di liggéeyal xadara bi fu ñu toll futtiku nangoo jariñu nangoo sonn ngir xadara bi tabaarakallaahu loolu la leen yàlla fay sunu waajur wii lu ne daan na ko daj gàmmu Tiwaawan waaw jiite équipe tànt ñooy tànt di mook sunu waajur wii tabaarakallaahu ñoo daan jiite tànt ñoo daan jiite organisation te bu ñu paree bii lañuy ñuy dellu doxal seen bésu maam bu tedd bi kon tabaarakallaahu ñu ñaanal leen yàlla yàlla yàlla guddal seen fan te yàlla dolli leen wér teg loxo ci njaboot aar leen sàmm leen tabaarakallaahu ah lii ndigal la ñu ci jub waaw ki ñu jox ndigal li nag mooy suñu wéyjur sëriñ Pape Malick maa ngi fàttali gàmmu gi ñu mujjee gi mu ma gi fii te muy mujj gàmmoom waaw ca kër ga la ma woo mu saar mi sedda la ci ma ñëw ni ma ma nuyu ko ndokkeel ko ci gàmmu gi ba noppi mu ni ma mbaa yaa ngi bàyyi xel ndii fii ma ne ah, mu ne waaw waaw yaa cay dem waaw yaa cay dem tabaarakallaahu boobaak léegi dañul ñooy ñëw te bu nu ñëwee lañu fi daan fekk rek lañu fi fekk waaw ñoom xooleewul na suñu jëmm suñuy kilifa lañ xoole fooy dem di la xoolee sa kilifa yaatu nga loolu tax tabaarakallaahu nu sawar di fi ñëw ah ànd koog ñiñ ko war a àndal ñëpp nag rawatina nag mu ñëw fekk fi sunu uh, mbokk yu baax yi sëriñ Mamas mi di doom ci suñu bàjjen soxna Aminta si xalifa barakallahu daaw man ak Serigne Pape Cissé ñoo ñëw ren moo loolu moom wër na ma waaw lu ñuy gën di dem rek waaw ñuy ñëw ñuy ñëw danañ dem bañ naan waaw gàmmu gees est-ce que xajati na fi waaw ci barke gi tax ñu di ko def ndax nag wa amma maa yanfa'u naasa fa yanqusu fil ard la yàlla wax waaw gàmmu gi njariñu la ci gox waaw loolu ñu ngi koy dénkaat suñu autorités yi gis nga gàmmu gii bokk na ci liy jox assurance gox bi waaw bokk na ci liy indi xéewal ci gox bi lu ngeen dugg fii bu ngeen fi jógee bu leen neexee dem leen lu ngeen xëcc rek dana leen wuyu si waaw bu ngeen jógee ci gàmmu gii sooy boo lu ngeen bëgg a xëcc yéene ko gox bi moo xam biir la moo xam département bi dem leen ngeen yootu ji ko di ngeen ko jot insha allah waaw ndax nag mat mat mu yàlla gërëm noonu la yàlla di def mbiram waaw te dafa am benn bis benn mbokk mu ñëw fii Tiwaawan gàmmu mu ñëw ci sëriñ Abdoul Aziz hmm. fekk gàmmoo ngi jege si hmm. mu ne sëriñ Abdou sëriñ te nga defar projet hmm. ma jël projet bi yóbbu ko ñu financé ko mu indil ñu alal ju baree baree bari ndax nga defaree ko gàmmu waaw sëriñ Abdou nee na ma ne sëriñ Abdou ni tekk ba mu yàgg mu ni ko dafa mel ni matu ko na waaw loolu rek la ko wax. ndax borom gàmm gi dana defar gàmmoom. mu ne ko gis nga. mu ne ko bis bu ñu demoon ba gàmm ñëw. ñu génn ci gàmm gi dara doxul. mu ne ko ñun njabootu Seydil Hadji Malick yëpp danañu def délégation dem ca Rawdom. Hmm. ni ko yaa fi taxawaloon gàmm yaa nu ko bàyyee. ñëw nañ gàmmu jot ñu di ko gàmmu dara doxul sa gàmmu ngoog mu ne ko waaye ma yëgal la leen mu ne ko gis nga gàmmu gii mu ne ko ah, mu ne ko lu raw neex dana rupuj puj loolu mbokk mi dem hmm. ah xam naa xelam dal na dalul hmm. waaye daal bi gàmmu gi paase hmm. woo na sëriñ ab téléphone ni ko sëriñ bi loo wax ci gàmmu mu ne ko dama waxoon ni dana neex dana rupuj puj mu ne ko boo amoon baat bu gën a foor rupuj bu sax man la gàmm gi romb na loolu pour wan leen ni li ngeen di def ñi ngeen koy defal ñoo leen di toppatoo xamuloo ku muy dëgg ci yow nga taxawal lu mel ni def ko muy ngir yonent bi ngir dëggale ko kàddu Seydil Hadji Malick ku fa ñëw rek sa aajo faj amul werante lu fa waay ñaan yàlla nangu kon tabaarakallaahu loolu ñu ngi koy dalale seen xel ngeen xam ni gàmm gii bu fi ñëw ah boo la suñu bàyyi ba Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour daal wax naan boo bu la neexee sa affaire day baax bu la neexul sa affaire day baax moo tax Serigne Bamba Serigne Babacar radiyallahu anhu dañu woon bu ma amee taaw bu góor yonent bi laa koy tuddee mooy Serigne Moustapha Sy Jamil ndeysaan bi Serigne Mansour juddoo mu tudde ko Cheikh Hadji Mansour ndeysaan mu ngi maam Abdoul Aziz muñal bu ma amaatee doom yow laa koy tuddee maam Abdou ñëw ni ko góor gi yaa ni woon boo amaatee doom man nga koy tuddee mu ni ko maa ko waxoon waaye yaakaar naa dinga nga xaar ba beneen yoon ndax lii bi daa ñëw indaale turam di Seydi Ahmed Tijani mu ni wala xarqun adnana adkataaka mubashiran wala qad wulitu walidan bi wilaadati sa góor لولادتي في منفدي تجاني هني ولأنني سميت من أمر بي سنجاي وجدا إله به سماني هذا رسول الله يوم نزولي متقلدا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائكه وصدي إليك أكوفهم بتفاني يتلقون صلاتك العظمى التي ما بعد والد من حربا وفور من بين النوافذ في الإمام متفرجات فيك كالولدان وعليك برد ذاك محمد في موقفين به وفي الإعلان وبوجهك الصافي بوص بير من قال أم الكتاب بقلبه النوراني بقي صلينا نعم. يا سيدي يا سيدي يا سيدي من لي بميدك مرأة الحسين يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ذاك ربك عن أوتاني ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربي الحنان ما ترى أحمد يا مرشدا والأرض والأشجار قوم عمل فسمي العام عمل ndax gàmmu gi neex na di si juróomi at a ngi dëgg la Mor Sarr démb damaa gis ni ma daaw damaa gis ñu daje kër sëñ Baaw gis buñ kenn ñëwul dinaa leen yóbbu police. wax na dëgg de. tey jii maa ngi waroon a dem ca Tambacounda. waaw wallaahi waaye dama fa am lu yëble ngir ñëw fii yàlla yàggal taxawaay mu mel ni kon ah lii moo ci nekk. Hmm. kon samp mag ñi la la cay dimbali. mooy. bàyyil man dugg ci demal demal demal samp mag ñi la la ciy dimbali mooy nga fexe samp ba dëgër waaw ah. soo góorgóorloo ba samp ba dëgër résultat ba nekkul ci sa loxo waaw boo gisee mag ñi ni taxoon ñu doon sonn liggéey lañu leen jox duñu ko xeeb waaw mosuñu ko xeeb lañ ca war a def rek la ñuy def ndax xam nañ ni ña ñoo amal affaire mbir ma fa mu war a yegg ñoo ko fay yeggale waaw moo tax damay wax ni euh, euh, euh, préméditation amul ci tariqa bi maanaam lii lay def après ma def lii mu jur résultat bi calcul fii yooyu amul ci tariqa bii yow defal li nga war a def rek cheikh Mouhamadul Hafiz Shinqiti bi ko yol bi ko cheikh di jox tariqa bi daf ko ni demal dama lay jox tariqa bi de dindal la ijaaza may la ndigal nga joxe ko waaye soo demee bul woote toogal waaw mu jógee Faas dem gànnaar juróom-ñeenti at waxul kenn dara ba bés cheikh Mouhamadul benn. nit ñëw ci buntu këram ñu ne ko gana lay seet mu ni na yegg si mbokk mi ñëw yegg si nuyu ko ni ko sérité bi nga jëlee Faas laa bëgg nga jox ma mu ne ko sérité man juróom-ñeenti at boobaak léegi xanaa bu ma indi woon sérité war naa yàqu mu ne ko waxuma sérité bu yàqu salaatul fatiha ak jawharatul kamal bi la cheikh jox moom laa bëgg nga sédd ma ci mu xam ni cheikh ni ko la ko cheikh waxoon dikk na toogal la lay feeñale ngi ñëw mu jox ko tariqa bi dañul di ko joxe ba ni mu tasaaree tariqa tijaan ci Mauritanie chaque fois ku ciy dem rek la ngay wuti yaakaar ni loola ngay wuti da nga fekk lu raw loola waaw Cheikh Alhaaj Omarul Fuuti ba muy gisee Mouhamad Mouhamadul dafa demoon pour mu jox ko ndigalal joxe ci tariqa bi rek defal ko ijaaza waaye ndeke moom xamul ni moom moo war a donn Muhammadul Xaali waaw moo tax mu demee mu ko ijaaza dafa dem rek yeneen ci beeg cheikh feeñu Muhammadul Xaali ni ko kii moo la war a donn jox ko bagage yi mu wool war ko mu ñëw mu dajale bagage yëpp jox ko mm-hmm. ci alxaaji Malick moom ñu defal ko lu raw lépp ndax moom dañ ko indil bagage yi jóoral ko fi te ñëwagul ni maam Alpha téyal ko boroom a ngi ñëw waaw mu ñëw nee ci benn ngoonu yoor yooru tàkkusaan laa am lépp laa am sama xaala cheikhu ca laa am sama ndigal ak sama ijaaza joxal doxal ci tariqa ci benn bis boobu leneen la kon tabaarakallaahu ku ci nekk la nga doon doo ko doo ko doo ko feeñal doo ko sàkku waaw yàllaa lay baaxee rek moo tax ñiy jël tarixa bi kenn duñ ci woo kenn di la propagande naan la kaay jël tarixa bi yàllaa lay baaxee rek nga bokk ci ñi koy jël bu jotee ci yow doo tëdd lal te jëloo bu jotee ci yow loolu tëdd ci lal te jëloo waaw naa dégg sëriñ Abdou Aziz mu nettali nee na dafa jóge gànnaar Mauritanie Nouakchott nee na ñëw sonn ndax ah. yoon wu xat mu wu yàgg te sori hmm. nee na mu ñëw xalaatu lu dul tëdd nelaw nee na mu ñëw ci buntu këru sëñ Babacar nee na fekk fa benn waay mi ngi taxaw nee na waa ji ni mu ko xoolee daal xam na ni kii moom àndul ak sago hmm. waaye mu nuyonteeg moom nee na waa ji ni ko man de yow laa soxla mu a ah, baax man di maa ngi nii di a ñëw te sonn na ndax mën a bàyyi ba suba mu ne ko déedéet sëriñ ñu nee na ma ne ko ah, kon nag ñëwal ñu yéeg ci kaw ñu ngi may defaral reer bu ma solo summi ko changé ñëw ñu ànd reer nga wax ma lu la fii nee ñu reer ba pare mu ni ma man daal tey dama ni duma fanaan ci lan ci jëluma tariqa Cheikh Ahmadou Tidiane te ki may yéene woon mu jox ma ko mooy sëriñ Pape Malick Sarak ma laaj ko ñu ni ma tukki na léegi nag ma bëgg yow nga jox ma ko te nga joxaale ma ci ndigal su ma gisee Serigne Pape Malick ma ñaan kon mu yeesal ma ndax moom laa nimse woon mu jox ma tariixa ah, sëñ Abdou ne ko mën naa ko defal ndax yéen ñaar ñëpp maa leen bokk yi ko tàllalal ma jox la ko kon loolu dafay am mm-hmm. ah, bu lay buy jot ci yow rek kenn du la ko wax yaay dem jëlali ko sa bopp waaw ah. lu mu la jaral nag mu jaral la ko su ko defee tabaarakallaahu loolu moom la nu mag ñi sédde kon nag yàlla nañ ko def yàlla na ko yàlla def muy suñu muur te daje bi ñu yàgg di ko teewe ak yu baree baree bare te bu ñëw rek dàq morom su ko defee ñu ngi guddal sax te waru ñoo guddal ndax te gàmm gi tàmbaleegul ndax a ngi ni incha allah buñ fi jugee ah moom mu wéyal programme bi ci wàllu animation ak la cay aju yëpp nag su ko defee ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tabaarakallaahu tàmbalee ko ci ñi jàpp ci bés bi te xaaj Moodu wax ko léegi tabaarakallaahu ak imam Moussa yal na yàlla fay leen yal na yàlla wuutuñu ci ñoom defal leen seen yéene ak seen bëgg-bëgg ci zahir ak ci baatin su ko defee itam ñu sant seen mbokk mi nga xam ne mooy seen xalifa Ababacar Sarr di directeur u SONAGED tabaarakallaahu ah di wóllëre ndax euh, moom dañuy déggante saa su ne ci téléphone di waxante ci réseau yi tabaarakallaahu yàlla dogal na moom sama mag bu jigéen ñoo bokkoon nekk fële ca sànnaar ah, ca université tabaarakallaahu muy mbokk di wëllëre di soppe ñu ko yàlla itam tabaarakallaahu nomination bii ko yàlla sédde yàlla na ko yàlla def muy njiglaayam tabaarakallaahu te yàlla jàppale ko ci biir ak ci biti jàppale mboolem kilifaam yi nag tàmbalee ci tabaarakallaahu premier ministre ba ci président de la république ak mboolem ñi aju ci seen gouvernement te di leen jàppale yàlla na yàlla defal leen seen yéene seen bëgg-bëgg ci biir ci réew mi tabaarakallahu yàlla itam defal nu jàmm defal réew mi jàmm nii ko monsieur le maire waxee ñu ngi jib ay élection waaye élection nag euh, warut jur benn jafe-jafe bu dee li ñu dëgg li li ñu li ñu li ñu wax ci politique ak wàllu euh, joŋante ci élection dëgg la warul jur benn xëccoo warul jur benn noonoo warut jur benn jafe-jafe ndax sëñ Babacar si radiyallahu anhu daf ni woon nee na carte yi ñuy wotee ñaar la waaw hmm. mu ne carte làmmiñ hmm. mu ne ak carte poos hmm. mu ne nag benn bi dañ la ni nga denc ko bi ci des ñun la bàyyil ba bu jotee nga yóbbu ko ca urne ba ni kon nag sa carte poos moom lañ la sànniloo ca urne ba kartu làmmiñ bi nag nga dégg waaw ah, nee na loolu soo ko defee problème du am ci ay élection te Sénégal léegi nag mature nañ ci wàllu woowu waaw maturité ci wàllu woteek wàllu élection yooyu yëpp tabaarakallaahu ah ñu ñaan rek yàlla na yàlla yokk jàmm ji te yàlla suuxat ko bu baax a baax a baax ah ñu ñaani réew mi yàlla na fi yàlla saxal jàmm saxal fi teraanga saxal fi naataange nawet bi yal na yàlla def ko muy nawetu barke muy nawetu naataange di nawetu yokkute ci biir ak ci biti te mbooleem xéewal yi ñuy xaar ah yal na ko fi yàlla wàcce ci barke ki tax ñu daje fi muy yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy sant ñëpp santaat suñu waa kër bàyyi bu tedd bi tabarakallahu ak sëriñ Mamas ñu koy sant ay itam sant Serigne Pape Cissé mhm. mi nga xam ni moo maag moom ñoo daan bokk jataay bi moom tamit ñu sant ko bu baax ah gërëm suñu asatise yi mhm. Oustaz Abdoul Aziz barakallahu Habib ak imam Moussa ak seen mbokk yu baax yi nga xam ni ñoom lañu seqal liggéey bi mhm. ñuy seedewaat ci xaaj imam Moussa bu baax ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci wàllu daara ak ci wàllu njàngale ndax tabaarakallaahu ak ah, ñoo moom ñoo seq al jamiya saqaafiya bi nga xam ni moom la sëñ Abdou jiite woon mu ëmb ittihaadul jamiyatil islamia muy fédération des associations islamiques du Sénégal ñu di ca euh, liggéey ci wàllu euh, gën a yaatal njàngum arab ak njàngum diine ci réew mi te Serigne Abdoul Aziz nag bayoon ci làcc wu sore sore sore sore waaw ndax tabaarakallaahu moom damay wax ni kuy fayeeku salaire wu njàngaleem arab fii ci réew mi amal amel amel nga ko cant amel nga ko àq ndax li mu ci daj moom suñu bàyyi alxaaji Moustapha Cissé daj lu ne ngir njàngum arab yaatu ci réew ba ñu ko mënee alal la daan di ko ci def di fay ñiy jangal di fay ñiy defal xale yi examen booba ay centre ñoo fi amoon ñaari centre ba ñett benn ngaay benn mbooro benn tiwaawa waaw ñoo daan ci poche di jox enseignant yi di leen jox seen ngir ñuy mën a dem ci centre bi di toppatoo xale yi ñu def seen examen booba Sénégal benn benn benn benn diplôme moo fi amoon bu ñu reconnaître ci réewi arab yëpp mooy diplôme fédération des associations islamiques waaw soo ñëwee indi diplôme fees man ci laa jànge bi ma demee Koweït bi ma demee am na ñu ma ñu indi woon yeneeni diplôme dañ leen delloo yéen dañ leen di yóbbu ci classe yi gën a suufe ndax seen formation des na waaye man bi ma ñëwee présenté diplôme fédération des associations islamiques dama admis d'office waaw classe ba ma waroon a dem ma dem kon loolu liggéey bu am solo la ñu liggéey ko ci réew mi moo tax damay wax ni tabaarakallaahu ak xàll nañu yoon wi waaw yoonu njàngaleem arab ci Sénégal ñoom ñoo xàll yoon wi ba mu leer nañ tey nag tabaarakallaahu ah ñu ngi gis ñu ngi gën a bàyyi xel ñi jàng arab bërki démb président am na ku mu dénk wàllu diine ak wàllu arab mi ak ñi diplômé ci wàllu arab tabaarakallaahu ah ñu di ko rafet ndax nag loolu cër la ñuy ñaanit ñu gën a bàyyi xel ñi génnee ci école arabe yi ndax léegi lii ñi jàng français di jàng ñoom moom la ñuy jàng waaw bil arabiya nag lañ koy jàng mooy loolu ndax làng moom làng la waaye li ñuy jàngale ci école française yi di ko jàngale ci école anglais yi loolu la ñuy jàng ci école arabe yi moo xam lycée yi moo xam franco yi moo xam lu mu mën a doon tabaarakallaahu bu ko defee loolu itam ñu ngi ñaan ñu gën ko bàyyi xel ndax nag ñu ngi jëm ci réew ñu ngi jëm ci jamono boo xam ne ah àdduna bi dafa jaxasoo waaw te waruñu xeeb benn benn effort waaw war nañu dem ba ñu naan ah ministre yi kat compétence yi ñu ci tànn la ci ëpp ci ñu jàngee ci école arabe yi la wala ñu jàngee ci daara yi réew mi yeyoo lu ni toll su ko defee ñu ngi gën a yokkaat suñu euh, encouragement ci xale yi ñu gën a góor gën a jàng gën a taxaw gën a taxawu seen diini gën a taxawu seen xadara tabarakallahu gën a taxaw tariqa bi ndax nag tariqa bii nag tariqa xam-xam la xam-xam a koy téye jàng a koy téye góorgóorlu ci seet gëstu leeral li war a leer ci xam-xam koy su ko defee kon nag tabarakallahu ah kàddu yi jaxasoo na gudd na waaye tabarakallahu gàmm gi nag day sunu gàmm di ko bàyyi xel ni nuy bàyyee xel gàmmu Tiwaawan ci taxawaay bi nga xam ni moom la fa jaboot yi war a am kon su ko defee ñu ñaan yàlla yàlla bu daje bi nekk suñu mujj daje yàlla nañ koy teewe at yu bari ah bi ñuy ñëw sëriñ bi booleel ñu ak njaboot ci boppam ndax tabaarakallaahu su ma tuddee sëriñ Mamaas mën naa wax ni ci délégation bi lay bokk moo ko Abdou Aziz ak Haj Modou waaye itam sëriñ Moussa Ndaw ñi nga xam ni tabaarakallaahu ah moom la ma sëriñ bi daan booleel bu muy ñëw ànd ko ak moom ah fekk Cheikh Tidiane moom mën naa wax ni moo fi wuutu waa kër Baye Alxaaji Mbay Donni radiyallahu anhu tàmbalee ko ci seen baay ndax taawu baay mooy baay sëriñ Xalifa Mbay ak sëriñ Alxaaji du kenn tabaarakallaahu ñu sant ko mbokk yu baax yi mu ñoom Abdoul Aziz Ndiasse ak Abdal ak seen mbokk yu baax yi Haj Pape Makhtar moom tam mi ngi fi Haj Pape Makhtar mi dama ko tooñ léegi ñu ma ne ah, sama së sama doomu sëriñ ñëw na di ndax bàyyi ma doon tëralal bind ca daara ja di Alxaaji Malick Ndiaye waaw su ko defee ñu euh, sant ko ci teewaay bi suñu rakk jëlee di Abdou Aziz Diène bàyyi Oustaz Ousseynou Diène moom tamit tabaarakallaahu ak mboolem kilifa yi fii teew xam naa ko hmm. fi teew ñu ngi lay sant ñu ngi lay yàlla it muy jataayu barke jataayu sutura jataayu defaru àdduna ak alaaxira waaw waaw waaw waaw Oustaz Diène waa tabaarakallaahu nuyu ko bu baax ak mboolem kilifa yi fi teew monsieur le maire jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay di la ñaanal yàlla waaye ñu sant soxna yi nag ndax ñoom nag ñooy taaral gàmm ñooy neexal gàmm suñu bàyyi Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour daan wax ni jigéen yi ñooy waaw nee na cric moom sa oto nga koy bàyyi ci ginnaaw waaye bis boo kërëmee rek di nga xam lu mu doon jariñ waaye romb nañ loolu sax tabaarakallaahu ñoom jigéen ñi waaw ñooy neexal gàmm suñu bàyyi xalifa bi sëriñ Babacar Sy Mansour daan wax ni nee na bis bu ñu demee yowmal xiyaam yàlla yàlla fay jigéen ñi bàyyi góor ñi nee bu góor ñi mer waaw ndax jigéen ñi ñoo ko yeeyoo waaw ndax gàmm bu xew ñu utal ko mbubb waaw nu nit góor ñi nag dañuy paase ko paase wax rek waaw mbubb ma nga soloon daaw ca gàmmu ga moom ngay solaat léegi léeg sax soxna si ni la ah alaaji mbubb mi de xaw naa furi de xanaa nga ne ko waaye yóbbul ci tàpp tàppkat bi wala suubkat bi mu suub ko nga indiwaat sol waaye ñoom xew-xewu diine bu am hmm. ñu xottil ko mbubb waaw boo demee ci tànt yi ñooy taaral jataay hmm. boole koog nag di sarax waaw di sarax di saraxe rek waaw ku way yonent bi ñu sarax ku way cheikh ñu sarax la ku way cheikh alxaaji omar ñu sarax la ku way alxaaji malik ñu la ku way sëñ babacar si ñu sarax kon nag yàlla na yàlla fay leen te yàlla yàgg di leen sagal su ko defee ñu ngi sant ndaw ñi itam ndawi xadara bi tabarakallahu ñii ñu taxawee jàppale mag ñi ndax dinaay wax ni tànt yi mag ñi mënatuñ koo sàmm waaw bâche yi mënatuñ koo yëkkati waaw te ñoo ko daan def nag waaw di leen ko uh, waajale ba ngeen ñëw kon nag bu ngeen ñëwee ñu dëgër war ngeen leen ni nag jërë ngeen jëf léegi nag mën nañ mën ngeen a toog noppalu ñu awu waaw dégg suñu ba di wéy sëriñ asmi sëriñ muniru saar keroog bi ñu ñëwee ci sëriñ Abdou ndeysaan mu ni day dem tol yi man ak Serigne Moustapha hmm. ah waaw te ñu ñaan góor gi mu bàyyi bañ a dem ndax léegi mag la hmm. ñëw ni ba góor gi te nga toog rek te bàyyi ñu dem mu ne ah le seen bàyyal xaaji mu ni Roussard daan wax de laa leen di wax rek hmm. nee na mag daal bu ko wóoree nit jant du ko soow nee muy lal bâche di talal basang di tegi chaise nee aka foog nee na am na ku mu bëgg mu noppalu ci pénc mi waaw ah. ndeysaan booba nag ñu xamul woon ne ndekete ca la ñu doon tàkkoo waaw waaw yàggul tuuti rek mu wéy ji boromam tabaarakallaahu ñu xam ni kon loolu la doon junj mm-hmm. waaye ñoom mag ñi dañ leen di defaral rek gunge leen nag ba ngeen ñeme mm-hmm. ñu bàyyi leen ak fi ne ngeen wéyal ngeen continuer taxawaay bi yàgg su ko defee ñu ñaanal suñu waajur yi gudd fan ak wér yàlla defal leen ko defal ko seen njaboot ah defal ko mboolem ku leen topp ci seen xadaraat yu tedd yi su ko defee ñu ngi jéggaluwaat kàddu yi di baalu ñëpp xaq di baal ñëpp xaq di wax ni ah yàlla nu yàlla defal nu teewe ko at yu baree bari te mu ànd ak fekke ak tal ñu ñaanal xalifa bi Serigne Babacar Sy Mansour moom ay rakam Serigne Maodo Serigne Babacar si Abdou ak njabootu Seydil Hadji Malick yi nekk ci seen wet di leen jàppale ku ne xam na ni jumaa jii xolub taalibe yëpp sedd na waaw keroog ba ñu koy jox caabi ji ku nekk bëggoon nga yéene woon nga mm-hmm. tabaarakallaahu ne ci wetam يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñun bu ñu la santee ñëpp ànd sant laay laaj rek laay laaj réception daaw bi ak réception bi ren bu daax waay te dama laaj bi dama ne réception daaw bi mu def fii ak bu ren bu daax daaw de dañu seet ay seet seen daaw kenn seetul seet bi fees ñëpp a ngi dégg te xool kon loolu moo dàq li nga wax ci jigéen ñi sama ma ko wax da wax ba pare tuuti des ci da nga ni ñoo leen di paaseel ñooy yóbbu tuuti yu billaahi bu dul ñoom ci wàññi génn góor du fanaan ñëpp a ñibbi. bu wàññi amul woon góor ñi ñëpp caame fanaan. ku fi gàmm rek ba mu neex jigéen ñi tax. lu fi jag ñooma. keneen ca siyaar ba wax naa sa mag. ni ko tey jii ñaar fukki ak benn. ak fukki taksi ak benn bon bu jigéen ñii jàkkaarloog yow noonu doon siyaar seen ñii duñu ñëw kon xam nga ni lañ leen defal sëñ Babacar sa maama ko di def hmm. ndax moo ne maa leen séddoo sëñ Baba sëñ Mansour li tiri lañu hmm. sa ni sa hmm. ni ñoo leen di paaseel ñoo leen di baaseel ñoo leen di paasal ñoom ñett tax jigéen ñu man na ñoo tax ñu man na yal na ngeen yàgg a mën nag waaye maa ngi leen waatal ni yal yàlla fajal leen seen aajo seen njaboot yal na ko yàlla defal waaye suñu conférence tey bii mun gi ñu kontaan mu ñëw na Ahmed Tidiane ginnaaw tey laa kii yey suñu kilifa mooy suñu kilifa mm. sëñ Moustapha suñu kilifa mm. ndax sëñ ba Abdoulaye Al Amin dama ni sabaay ak ni ko Serigne Cheikh Tidiane si ak Serigne Mansour ñett fi ñeent daana fi jaar gàmm at mi Serigne ba Moustapha sëñ Babacar si ah, Serigne ak sëñ Mansour jox ndigal alaaji bay doon la ni ko gàmmu di fi day gàmmu kër gi day gàmmu kër gi keroog ak bi mu sàngoo suuf mel na fi gàmm bi gàmmutul bi sàngoo suuf fii la daan ci néeg góor gi ci kër bi fii la daan fa yendu dafa fi lépp jóge nga jaga yendu fi ci la góor gi naw ci gan ndaw bi di gaa ñëpp tëdd bàyyi bu góor see dëgg si sa ñoom dut kenn ñoom ñu ànd tëdd ba bëccëg jot ñu sangu def yëpp naan attaaya gont jàng boobaak léegi tiig kuur ba bi fi jógee dem àllaaxira gàmm gi ñu jox ko ci loxol duudu duudoo ko moom gune yaa ngi ñëpp ndax dama man dama ne lu ma wax naa ko wax ma may duudu gi sa gàmm yàllaa ko dogale noonu ba ñu fee ñëw yàllaa ko dogal mooy ñëwul ku fi mos a ñëw ba mu fi jógee ba nëgë ni fu ñu waxee dama dundoo moom kàmm bi mu ngi ñu nii kenn nekkan ci ci taawat tey moor ñan dama wax ni ma bàyyi baara bu nu sëñ Abdou Moussa woo ci kaw jox na yatti gàmm bu nu cëppeeloo dama naa dul ba muy dund séddale dama ko naa bu dul ndifiif booy boo nga xam ne moo ko ndifi lay jëm Mudik dikk fii nii moom kon doom ngi fi mu dikk fii du mbay doon def li mu daan def fii feek sama ruugaa gi dund moom laa fii def ku mën a àndal bu ma dikkee ma ni duut kenn ko yebal ak ñu mu àndal tey jii nag mayeetunu la la la bi la koy nga dem waxal ko bu ndara bu Côte d'Ivoire ak bu dee gàmmu Italie dama ni gàmmu ndi li seex a ko moom de d'accord ngeen jigéen ah, d'accord ngeen góor ñi gàmmu ndi li seex limaale ko duñ la jox kat duñ la yónnee ndaw duñ la def dara bu bis gàmmu di si yaa koy ñaay ñëw ah, sa da daan wax ni du a ci dara maay cotisé da daan cotisé di def kon nag gàmmu gi kenn du la ko yëgal Abdou Aziz yaa dëkk ci dee déglu dama ne boo jëkki yax jàng yi maa ngi moom bëkk démb la ne këram xam na li nga seex ak moom kon jërul wax ci mbooloo mi jërul wax li ngeen seex xam na ko dama ni Abdou bu ko joxati paas bu ko yëgal soññ ko rek gàmm gi gàmmam bis boo yàlla dogalee nu def fekke di woon yàlla nu ko fekke ba weesu ko bu ñu nee seex te yaa ñëwul kenn du fi jàng sas naa la ko maa la ko sas yaa ko moom yaa ko moom dikkal sa mag dikkal sa baay dikkal sa mag dikkal sa baay yaa ko moom bisu tey bii du du la sant du nangam sëñ bi boo nee waxal ba ko sëñ Moustapha yow nag yaay lépp lu yónni na sëñ Moustapha dégg ko waxal na ko Cheikh bul gàmmu Tiwaawan bis bu delsi bul amati genn gàmmu bul neeti Italie bul ni nangam ndi fii fa ngi boo boobaa na nga indiwaal si cotisé doom nga fi del cotisé cotisé laa wax du bokk ci gàmmu naa waxuma gàmmu si cotisé jox ko Moussa Sarr mii maa ngi jox ko ëpp mu indi leen policier bokk ci gàmm benn beneen bi ñaareel bi képp laa wax tëral daanaa ko wax ko ñëpp nii mbooloo mii maa ngi leen sant ba ma jullee fajar laa war kër ku ci ne la ko jiitu bëgg démb ñoom ñii dama leen woo samay rak ak sama doom yi ñu toog ca kër gi ku ne ne gàmmu gi ma ne leen giñ naa ci barke Serigne Babacar Sy bu gàmmu gi dal ko yi fi daan am dinaa am fu ma jaar te xam naa ne gàmmu gee ko dàq te sutteegul xam naa ne ko dàq te sutteegul ndax ñi fi ñëw tey ba gis ni musuñu fi gën nañu fee ñëw tey jii du ma ni musuñu fee ñëw gars yi gën nañu fee ñëw toogaay bu mel nii ci réception musu fi am moom toogaay bu mel nii ci réception musu fi am bu doon gàmm gi da doon daal defagul dara waaye gis nga bu defan dama naa bu nan ñaan rek ñëpp ñibbi kontaan nañu may baax nag loo xam moom laa daan wax di ko beesal bu ñu tëggee fii bay ñibbi ci kër yi maa ngi leen di waatal ci barke Serigne Babacar mi ma gëm benn Serigne nag benn Serigne ñëpp laay sama sama Serigne waaye Serigne Babacar laa gëm ñëpp ay sama Serigne waaye Serigne Babacar laa gëm de sama am benn Serigne nag boobu sàgganewu ko waaye Serigne laa gëm lu wax ci am dëgg maa ngi lay wax ci moom ci barkeem gàmm gi kanam la jëm. dañu ko doon jàppal si gune yii waaye kanam la jëm yàlla leen yàlla loolu si ndax yii ma gis yaakaar naa ne fu mu teg suñu tànk bu suba dañu ko def ñaari jéego mbaa ñett yàlla leen yàlla jàpp ndax seen nawle yii ñëw seen morom yii ma gis tey góor ak jigéen ñëw fi am na ñoo xam indiwu leen na fi yoo leen fi indi kon yàlla nag amu ko jëm kanam sa mag ji la wóolu sa baay ba la jox la digal yàlla jëm kanam ci barke yonent bi lu ci waay def bu dil bu weer bi dil si diwoon te amoo lu ko ñaar ca boo dikkee si yàlla nga am fekk laay wax waaye boo am fekkee bu ma rus neel góor gi la nga waxan dara amu ci ñëpp a jekk bu déwénee sob yàlla benn doomu laa ci ñu tëj bu fi bu fi jóge fii kër goo dugg kër goo dugg la nekk ci kër gee moo nekk ci kër gee fu waay dugg bul xatal kenn bu kenn xëccoo ñëpp ay doyal kër yëpp laa wër kër yëpp a am lépp ah. kër goo dugg bu kenn xalaat kenn bu kenn yuut kër yëpp a jekk fu mu jógee fu waay dugg rek toog fa doom yi ma am kii di suñu sëriñ bu fekkee doon yàlla ak sëñ Modou mii bu duggi mu dugg du ma ko laaj du ma ko seeti du ma ko la am am na fee na fee am na fee li ma li kenn xadal kenn fu waay dugg rek toog fa lépp yàlla fekk loo bëgg dee la fekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dong laa doon wax asalaamaaleykum maire nag maa ngi lay sant di sant waaye maa ngi lay sant ndax lii nga wax ci biir ba nga koy def loolu góob maire bala biir di gërëm région bi di la gërëm doolu ko maire kon kan ku duggagul di def ñëpp di la gërëm hmm. yaakaar naa ne boo duggee dina la ñëw kon li nga wax wàcc nga bu ma matalee bu ma leen doyee jàpp leen ma nii woo ko coonaa da nga ni bu ma matalee bu ma leen doyee faat leen ma bu ma leen doyee ma dellu ca rajo yaakaar naa ne damaa yaakaar ne buñ càggee di nga am ñoo doy du ma ni ñëpp la ndax bu ñëpp bëggeen ñëpp yonent bi di jóge midi Makka sëriñ bi dem midi bu noonu ñëpp kenn la ñuy bëgg yonent bi di jóge Makka dem midi yaa ngi ko gën a xam te ay bokkam ko gën a na bañ ak i jege yaayeen kon ñëpp mën naa bëgg ci biir ñëpp bëgg waaye ñi ëpp mën nañu laa bëgg waxuma ñëpp ñi ëpp ñi ëpp mën nañu laa bëgg ñi waxuma ñëpp ñi ëpp mën nañu laa bëgg te ñi ëpp buñ la gën bëggee nga gañe benn kase tax a gañe ñëpp buñ la gañee nga gañe waay loolu la lañ ci doon wax bu kenn jóge fenn dem ni ndaay bëgg léegi kër Mour Sarr kër Alaaji Sall kër Alaaji fu waay dem rek lépp nga fa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu damaa bëgg nag ngeen may ma bala doo sëriñ bi ñaanal ma ñaanal ma ñaanal ndax sëñ Moussa dugal na fukki ko Ixlaas ak benn ci sunu lépp sunu lépp sunu ñëpp xol yëpp billaahi ku xar xol yii fekk sëñ Babacar waaye maa ngi lay waata ne xar xol yi fekk sëñ Babacar boo yëngalee wet ki ci di nga fekk sëñ yëpp ndax sabaan billaahi wallaahi taalaa lu fi dib xalifa moo tax nga dib xalifa sabaay laa wax ko waxoon naa ko ci kanam dama ni ku fi dib moo tax nga dib keroog ba sax sëñ si Amady Diagne Cheikh wuy jee borom maa kii ñu wax na ko kii téléphone na ñu ñëw muy 3 heures ba ñu ko robee ba mu toogee di waxtaan ak xalifa Baye Mbacke xalifa Baye Mbacke di gërëm sëñ Cheikh ma ne ko ci digg nit ma ne ko xalifa ma jóg taxaw yóbbu ko ma ne ko xalifa may ma sëñ Cheikh mii lu ñu am ab sëñ Abdou sëñ Cheikh lu mu am ci teewam sëñ Abdou lu tax sëñ Cheikh déy ko. ni ko nangam laa bëgg sëñ sëñ Abdou Bakar na ci teg woo ñu ñëw ñëpp mu ni sëñ Cheikh ne nangam te duma ci dellu ginnaaw mu am bi fi sëñ Babacar si jógee dafa fekkee ni Alaaji Abdu mi sëñ Abdou tax ndax Alaaji Abdu daanañu romb nuy tànn man damaa mënta tiri daanu romb muy jamono dikk Tiwaawan am na yetti Tiwaawan ñu nu fekk daanu romb nuy tànn Alaaji Abdu di daw wata bi daw di nu na góor gee ci nekk waaye toll na taayu suñu bokkan bii bu nu ko mënee la jaay allah jëm lu mu dund ku ko tax sëñ Abdou mu bàyyi koo fi sëñ Mansour sëñ Abdou mujj xamatul sëñ Cheikh kii da ngay dem sax bokkul ak sëñ Cheikh xamul day mel ni bu xamatul sëñ Cheikh ndax daal jàmm aw ma naaw day sëñ Mansour def ko lépp ba sëñ Mansour ni ko jox naa la góor yi laa joxoon sa baat sa baat baatam jox naa la baatam ñëpp sëñ Cheikh yëgutu mbax mu ni ko ñëpp taxaw sëñ Cheikh ni ndegam am naa benn taalibe ndegam am naa ko sëñ bi lay doon ndegam am naa taalibe sëñ bi lay doon bu taaloon taal ba mu taal mu ni ma jóor sa loxo dinaa ko jóg ndax jàmm laa fi fekk kon sëñ Abdou tax sëriñ sépp di ay xalifa mu tax moo téye seenu xalifa juróom benn weeram daa dikk ba mu ba mu nelawee romb na maa kii nu toog ñu romb dem man ko yaa ngi dem yóbbaale xalifa ñëpp am ko ma ne waaw yow li nga wax seetlu nga ma ne ko waaw ma ne ko kii ku dib xalifa moo tax nga dib xalifa ma ne ah ma ne ko maa xam xal kii noo ko xam gis nga sëñ Abdoul Aziz mu ne ah ma ne ko giñ naa ci yàlla juróom-benn weeram yii mooy juróom-benn xalifa yi fi jaar yëpp moo di seeni xalifa juróom-benn weeram yi mu dund àddina juróom-benn xalifa yi fi jaar yëpp mooy seen xalifa sa baay yàlla yàlla na barkeem la ci ci yéen kon nag loolu laa tëje sëñ Moodu Garniango Alaji Alsaan Abdou Habib Garniango fa waaye dugg daal na mel ni këram la na mel ni daaraam la lu fa bëgg rek a nga fa na ñëpp toog bu kenn xëccoo bu benn goy bu leen benn gi la lépp yemb na a ngi ci kër yi yi kër yëpp yemb na maire bu dem léegi nag sëñ Moussa mii daa joxe woon ci sëñ Abdou fukki leslaasek benn nga door a ñaan سكرت الأشهر كن ميين تجيلي في الياب يني والي بك سي أبدان ميكي فقبتم تكسر بدن خول يلا يلا xare ko aljana aljana ji gën a kawe ci aljana mu toog di nu nekk waaw loolu daal la koy ñaanal bismillah bismillah ya karam بسم الله والله الله سمعت لم يدخل من قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد اللهم بل اسمعه منهما الى روح سيدنا محمد والى ارواح ابائنا وامهاتنا واخواننا خاصه جم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهياه منهم أجمعين عامة بركة أخرى إلى مسلم أبسرين توم مينيا خما كنت سنجب دوم دوم أبسرين خما دارا دارا دارا بوجه توم خما دارا دوم أبسرين دوم أبسرين تالي بدوم نان المدر تالي بدوم لا دوم تينك لمن يعني سبايتا waaye الله xam نمشي دوم mu fi leen toog may يارو نان nag ñaan li ma wóor tey jii li ma xamee. day yokk rajo yooyu ak télé yooyu incha allahu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy jàng fatiha jàng salaatul fatiha ayatul kursi qul wallahu ahad falaqeeg naas yi tëjee ko benn salaatul fatiha wala salaatu bu waay man ñu dugal ci yéen yëpp. lu ma la waxoon daaw fii. waaw da nga koo fàtte mu fàttali la ko. waaw fàtte dafa gaaw léegi nag xam naa goj bi duñ ko xaw waaw teen bi ñu root goj bi benn baag nekk ci ñu root ko ba doxum fees nga di ko ñu de duñ ko xawtoo yaa koy jukki ba mu àgg nga jàpp ñu jàpp ci bind bi surtout suñuy baag ñibbi kenn du jàng dara dara dara dara amin rek amin rek dara duñ ko jàng amin rek amin amin امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين امين آمين امين امين لما سبق آمين آمين آمين يا عبادي يلا في دجا ديوان آمين يجيب جاك إن الله يخرج من يا رب لبو كان مانك آمين يلا خيوال يبدون آمين آمين آمين وبجاه الهادي إلى صراط المستقيم اهدنا الصراط الذي عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك آمين يا رب آمين اللهم استرنا آمين يا رب الذي سترت بها نفسك آمين يا رب اللهم لا تخزنا يوم آمين يا رب آمين اللهم استرنا فوق الارض امين يا رب يوم العرض عليك امين يا رب بسترك الجميل آه، امين يا رب بلا تفصيل امين يا رب استر لنا بسترك الجميل امين يا رب دنيا بلا تفصيل استر لنا بسترك الجميل دنيا دنيا امين يا رب امين امين امين امين يا رب ولا تخيب سيدنا امين يا رب سبحان ربك امين يا رب عما يصفون امين يا رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين thank you